Ndakaaloo sax bari leen a dóor ñeent nit ñoo xam ne jóge wuñ bokkuñu fuñ jóge kee day jóge Almadi kee jóge Plateau Dakar kii jóge Diamaguène kii jóge Thiaroye ñu ñëw fekk ku góor keeg jigéen ki ñu nekk ci action bi amul damaa fekk mu ñu toog ci bi de amul dama fekk muy sol tubayam de même loolu soo ko waxee war nañ la dóor moo tax yàlla ne ñi nga xam ne ñooy jël ay kàddu di ko teg ñi nga xam ne yëguñu tinuñu defuñu dañ leen war dóor bu fekk indiwuñu ay seede dañ dañ leen war a dóor jor ñetti fukki yar bu ñu doon xëy di dóore moom dina doy waar trop. Hmm, bi bànneex di toggee ak safal bu ànd ak. loolu muy responsabilité de la société. mooy li ma doon wax maam Sira yaakaar naa ne société bi am nañ ci responsabilité bu rëy parce que nag comme je le dis toujours on est une société très hypocrite parce que nit ñi liñ lay wax ak li nekk seen biir xol du doon benn comme tu dis tuuma ki koy bind am na fu ko jëlee. Mhm. c'est pas toujours le cas parce que tu m'as donné tout de suite exemple benn bi. Mhm. dama lay laaj est-ce que am na ay nit yoo xam ne comme nag tey ji man Adja rek ma yeewu. Mhm. bëgg a xool ex nan laa ko mën a freiner nan laa ko mën a yàqale yooyu. ma woo benn maam Sira. ne ko maam Sira sama waa ji daal dama bëgg nga defal ma ci est-ce que loolu am na ay ay ay yoo xam ne dañ koy commandité est-ce que am na dans le milieu. bien sûr am na. am na am ba mu ba mu ba mu bëri man. dund naa ko. Mhm. mën naa la raconter benn anecdote mhm. sans pour autant ma wax bi. la nii titre nit ka. te pourtant kilifa. Mhm. <laughs> kilifa ah. Euh, soxnaam. Euh, wooma am fu mu jaar. koo xamante ne que euh, sama xarit la boobu maa ngi l'observateur. di bind. assidûment ah. mu bëgg parce que dañ ko takkal ñaareel. service commercial. loolu dara mais waaye bu ma neexee l' observateur kii ca baax. Eh. number one. Ah. <clears throat> le journal le plus lu nag Sénégal. <laughs> waaw <laughs> moom la <laughs> xam nga. Uh-huh. te effectivement du fait que L'Obs mooy numéro un. Uh-huh. mooy journal bi gën a siiw moom la nit ñi di gën a lire. Uh-huh. donc cible lañ woon. moom jëkkër ji kilifa la. takkal na ko wujj. loolu metti na ko. mu créé ay créem sexe ba photo woog jëkkër ji def ay affaire ak yooyu ndaw si ci boppam laa lay wax nii de. quelque chose de très grave te ci ay posture yu grave moog jëkkër ji mu yónnee ne pare pour jox ma xaalis bu bari Adja pour nga génnee loolu pour ma génnee photo bi. et que après moom du ci feeñ. et malheureusement am na journaliste yoo xamante ne boo ko defee ñu jël xaalis bi génnee foto bi parce que duñ dañ mën nañu ne. non seulement naa ci am sama xaalis. naa ci am information sama journal dina dox. dina continuer parce que après moom bu waxee par force moom ci boppam day ñëwaat taxaw daan ne waaw dañ ma nii waaw sama image écorché nañ ko nii naan nii mu continuer ce mhm. journal aussi da ciy dem mhm. donc pour te dire que loolu dafa am c'est un cercle vicieux très difficile. Euh, ex lan moo tax Sénégal société sénégalaise suñu nee rek diw def na lu tax bu ñu weddi. bon man tout d'abord defe naa ne il faut que ma xaaj laaj wax bi ñaar. Mhm. société bi bu njëkk ak société bu bees bii. bokkul bokkul. Mhm. bu njëkk ba il vivait le monde des idées. Mhm. bu njëkk matériel amuloon. léegi nag matériel am na kër yi am na oto yi am nañu xaalis am na. donc tuuma am doole. Mhm. tombé nag génération bi bàyyi valeur ya mag ña amoon. moomante ne boo xalee daw dugg ci kër nettali ñu dóor ko. Mhm. sans pour autant ñu laaj source ba. ñun dañu juddu bàyyi valeur yépp di roy benn canal bu am doole. mooy bitim réew. Mhm. lépp lu jóge bitim réew soxlu ñu vérifier pour ñun la meilleure façon d'être mooy ñu nasaraan bi di doxalee seeni réew ba muy dox. noonu la. suñu dëkk alors kon nag bokkuñu ay mœurs valeur yooyu la ñu bàyyi mhm. nit ñi nag jamono bi ñu toll defe naa comme ni ñu koy waxee c'est pas pour rien mhm. alxuraan wàcc dëgg la ñu war ci tënku defe naa ne booy xool benn bi ci yàlla gën a rëbb sax ba tax na sax man ma jàpp ne alxuraan wàcc mhm. mooy fen tuuma dafa am saar bu wàcc spécialement pour. pour loolu donc ñu gis ne jamono yu ñu toll. Mhm. valeurs yi dañu war a delluwaat booy xale yi ñu mag ñi yaraat xale yi. Mhm. ñu booy yi ku ci nekk ku ci jur sa doom nga bañ ko bàyyi ak sagoom. Mhm. yar ko dindi ci moom parce que am na jikko yoo xam ne bu jiitoo ci yow. tuuma bu ñëwee mu du la du la sonal mais am nañu valeur yoo xamante ne bu nekkulee ci yow uh-huh. loo rafet rafet rafet rafet loo am xel am xel gis nañ fi des cadres d'entreprise uh-huh. yu tas seen société am na fi ay cadres yoo xam dañuy yor oto yu rafet tuuma moo leen may loolu. Mhm. donc ñun fi mu toll nii on monde du matériel ba maté matériel di gën di am doole. dëgg la tuuma dana gën am doole. donc defe naa ne fenn rek lañu mën a mhm. mooy valeur yi. kon daal jugee jikko yi kon jugee gu fi. absolument non du fi jugee. loolu moom ex dafa ne xale yi dañ leen a war a yar mais est-ce que du mag ñi ñoo war a yaru ba pare. ndax yow da toog ci kër dégg sa yaay naan diw de nàngam diw de sàngam yow loolu ngay xam loolu ngay jàng ëllëg si biir boo koy def du la déranger qu'est-ce qui se passe lu xew si suñu société qu'est-ce qui s'est passé ba valeur yooyu yëpp naaw waaw sa doom ci yow lay xool parce que yaay ndeyam tey ku mel ni njole soo toogee sa doom toog nga toll ci jubbanti nga jékki-jékki waxal nit lu ñaaw mi ngi lay déglu. bu yokkee ay atam rek moom it bu toogee moromam dana wax lu ñaaw. parce que ci yaayam la ko gis. loolu lay xam. mais tamit euh, maam. dinaa la wax benn affaire lan moo tax journaliste. même bu fekkee nit bañ na nit ba woo ko ne ko bindal ci moom temps avant muy bind lan moo tax du woote téléphone. parce que xam nga turu nit. xam nga fi mu dëkk. demal ba këram ne ko man journaliste la mais dañu wax temps ak temps ak temps nan la deme mais ñoom parents saay bi ñu laaj. dëgg la dañuy jékki-jékki dañ na la tal parce que man bin ma mujjee def may ma ma ah, ñëw. bin ma mujjee def man ban na waaw dañ ma mujjee def bu garaaw. barki Serigne Saliou ak sama bakkanu doom. ma toog ak sama jëkkër di ndekki est ce que xam nga ne yéen leen bind avant sax Sénégal di ko liir extérieur yéen liir yéen na ma. dëgg la internet bee tax. sama xarit yan yan nekk États-Unis ñoo ma woo. Njole ma ne ko ah, ñu ne ma dégg nañ yow ak Tafa tas ngeen démb. te maag Tafa ñu ngi toog di ndékki barki Serigne Saliou Mbacke jour boobu mi ngi ma fekk may ndékki mais dama ko bàyyi mais dama ne Tafa tey du dem sax naan dañuy weddi mhm. dañuy fexe ba nax kenn mu ñëw rek fekk ñu toog nga dindi tuuma barki Serigne Saliou Mbacke boobu lañ ma fetoo ma dem sol benn blouson teg samay jëmbe di répété sama jëkkër toog ci sama wet dëgg la mhm. waxal nit lu ñaaw nag man da man chaque jour dama koy féetale ci iñaan mhm. ak soxor te bu nu nag rafetal xol yi ndax nit li yàlla bind cib jëm booba juddoogul juddoogoo te boo ne du ko am rek da koy am dëgg la kon nan rafetal xol yi te xam ne dëgg neexul daal waa risque waaw tàcc leen loolu waaw waaw so so sama ko mayee Adja ñu euh, doone euh, ci lim ma interpellé noonu mhm. bëggoon naa rek juste mhm. mu am benn affaire quand parce que bu ñuy ne journaliste yi journaliste dëgg la man bi may doog pas le procès des maa ngi fii wuy ma fii dama leen fi ma fi toog ma wax beneen du ma fi toog ne ko maa ngi leen di ma woone ko tuumalaay da nga ne ma baax na Adja baal ma <laughs> nañ bàyyi noonu ngi daw la la <laughs> mooy guerrière bi moom daal tey tey moo nag maa leen fi toogal. par rapport ak euh, Ndiolé li mu c'est vrai que wax naa ko man sama bopp. Mhm. y a des brebis biir am na. dëgg la partout comme partout voilà mais nag yéen tamit yéen star yi. yéen les célébrités là yéen ñii. yéen ñii ak yow mère Diall. ak moom. waaw ak yow yéen ñëpp. de fois. da ngay am benn information. Mhm. dina am lu koy yor ci Adja si <laughs> wala ci média. waaw <laughs> waxamu bàyyi ma. <laughs> wala njoole même. wala ex wala ku mun munti doon. Mhm. nga am information ci moom. Mhm. topp ko parce que nag ñun tam dañoo am réalité. la le temps ne nous attend pas. dañuy war a boucler. topp toute la journée di woo ngay gis numéro journaliste bi doo ko jël. parce que bëggoo wax ak moom. léegi nan la ñuy def. boo ñëwee këram dool duñ la recevoir. ah déedéet kon kon kon kon waaw bu boobaa xam nga yooy mhm. yëpp. def na ko man dé déglul déglul maam Sira. bu boobaa xam nga yooy yëpp def na ko. mais da nga koy bind. waaw parce que yéen koo leen woo. waaw bu leen ca lu di ngeen ko bind. waaw bien sûr waaw effort yooyu ngeen def yëpp nag. waaw boo leen ko defee ca ca la yéen bind. du temps ñoom dañuy bañ a mm-hmm. après ñu ne moo ngi nii jotuma sax waxul ak man. mais est-ce doo maandu. yenn saa yi sax lan mooy lan ñu nga li am meer jaanu maandu parce que xam nga li wax mm-hmm. sànq nee na la avant d'être avant avant loolu société la yor il faut société bi dox kon loolu nga doxalee gis aussi c'est que aussi suñu star yi suñu star yi mooy suñu star yi quoi waaw suñu star yi yenn saa yi yenn saa di interpeller yoo xam ne duñ ci bugg wax loolu lañ waxante dëgg dëgg la yenn saa yi parce que nit ki tamit suñ la suñ la waxalee woola nit ki am humilité woola parce que loolu mooy liggéey parce que c'est ça sax en fait loolu la war a def loolu la war nit ki amul droit di bind ci nit te nit kaa ngi ne jëmm toog te laajoo ko soo ko laajee nag bu la tontoo nga wax la mu la mu wax. ak la ñu wax. c'est ce qui est normal mais yenn saa yi tamit da nga leen di laaj. duñu bëgg a dugg ci détail voilà. voilà c'est que vie aussi dafa nekk loo xam ne. muy yow muy man kenn ah, na loo xam ne pour journal bi ah, su ko liggéey waaw waxal waxal dañ ko tuuma ko dañ nga maanaam seytaane nga dëmm nga. tuumaal ko wax ko ko mhm. mu topp njabootam mhm. ay doom ñu mën a sëy mhm. doom yu góor ñu mën a takk jabar mu topp ko par génération loolu moom tribunal lan la ci wax moom euh, mooy li ma wax sànq bu fekkee ne nit ki dañ laa dañ laa dañ laa tuumaal parce que loolu bokkul ak diffamation xam nga diffamation day am fait ñu rattaché ko ci nit mais euh, daal di euh, jiiñ nit loolu jiiñ nit la jiiñ nit ne ak bët bët bu gudd la wala day naaw guddi wala affaire yooyu loolu daanaka ñun suñu culture Afrique moom moo xam. mais loolu boo amee daanaka code euh, pénal bi daf koy qualifier comme saaga. parce que saaga nit mooy wax lu bon ci nit ki ndax bu fekkee ne da nga wax lu bon ci nit ki da nga ko bëgg a atteindre ci honneur am ci dignité am ba tax na moom fi nekk nii mbalaan moomu nga ko sang. day doon mbalaan moo xam ne du tàggoog moom ba abadan. ndax day topp ay doomam. topp ay génération ay génération. loolu nag bu amee yow mën ngaa dem tribunal. su fekkee ne dem nga tribunal. kala tuumaal kala sosal loolu moom mooy ñëw indi ay firnde mhm. ndax loo waxal nit aussi mhm. da nga war a indi ay firnde bu fekkee ne nag indi woo firnde yooyu moom tribunal dala day day day dal sa kaw ndax man dama yaakaar ni yow bu fekkente ne dama yàlla baal ma ci moo bi doo dëmm mhm. yow doom noo xamee dëmm yow bu fekkente da ngay ren tëdd noo xamee kuy naaw guddee kuy lekk tànku nit kuy lekk loxo nit xam nga loolu ah, loolu man saa yu xamee waaw mais effectivement dëgg la li mu wax ah. loolu de mënoo xam lu dëgg la lu am la muy réalité boo xam ne suñ société la nag ah. xam nga li ko indi mooy ku néew doole ñi ci ëpp ñi nga xam ne dañ leen di jiiñ ak ndëmute mhm. daanaka ay new doole la ndax sëñ euh, sëñ Moussa Ka daan na wax ne mhm. ñàkk moo bon ci waaye ju baax dëgg la ndax loo mënti doon rek fi nekk nii buñ ne nii amul kenn ku ñu njiñ dama ko yor ay millions. ak ay kii borom oto bi kenn ko dee. kenn du ko dee mais ki nga xam ne ni dafa néew doole loxoom jotu ci ginnaawam toujours lu ci ëpp moom la ñuy njiñte ak dëmm ba loolu nag day day indi problème boo xam ne ni ëllëg day indi mais loolu boo amee waaw yoon daf lay maye nga mhm. dem tribunal mhm. boo demee tribinal porter plainte kooku tam indi ay preuve kooku indi ay preuve bu fekkee ne nag parce que ñiiñ demu dafa doon lu garaaw su fekkee ne amuloo ay moyens yoo xam ne yow mën ngaa mën nga koo naawal boo demee foofu tribunal mën na laa topp mën na laa daan diggante ñeenti weer gën ngaa néew ba ñaari at gën ngaa bëri. kon nag bu yeboo ngeen mm-hmm. ci bëri. juge bi day toog yëf toog magistrat la xaw ma gone gi at. Mm-hmm. waaw toog da nga koo tam mu ne waaw mën na ko naan. waaw waaw rek. moom la ñu wax mais mais. gis naa koo xam ne dañu ko yàq. Mm-hmm, ndeysaan. ko yàq yàq ay doomam. parce que jiiñ nañ leen dëmm goo xam ne. Mhm. timis sax da ngay gis ñu ñëw ko ne naan ay man laay laa xëy lan laa infiro dégg nga de. Mhm. ndeysaan. tadu moom. Mhm. mënatu la génn. mënatu la dem fenn. ku feebar ci koñ bi sax ñu ne kër diw la lekkee. mais bu ñu xamoon dëmm jiiñ ko nit tadu moom li ci ne. dem ci tuuma ko def. parce que yow koo fekkewul fu muy xàmpe hmm. fekkewul fu muy lekkee te mësoo gis euh, maman Diall maman Diall mësoo gis borom état waaw <laughs> maman Diall ah dalaa kaay max la leen mësoo gis ku sañse ba rafet mësoo gis ku sañse ba rafet takk ay ooram uh-huh. yor ay junneem di maye uh-huh. ñu nepp dëm la amul fenn fu mu am njole xam nga ñan la ñuy wax loolu waaw borom kër yu lëndëm yi. borom néeg yu lëndëm yi. borom baraag bu yàqu bu yàqu bi. da gis kuñ ko daan wax sax bu jëkk nga jékki-jékki tekki say doom tekki fàtte nañ ko ci xale yu baax yi ngay am. takk ci kër yu baax yi bëggoon naa dikkaat aussi tuuti tuuti. dinañ ñëw ci foofu dañuy dem ci les conséquences. Mhm. ndax nag tuuma dafa nekk loo xam ne képp kuy génneeti ci sa gémmiñ di wax nit dara rek nanga ko seetaat. parce que nit kooku ngay wax yaayu jàmbur la rakku jàmbur la doomu jàmbur la mm. xaritu jàmbur la te toute une vie mën na cee jugo yàqu conséquence tuuma tuuma doy na waar am na ay conséquences yoo xam ne si société bi tey ji am na ñoom seen àddina yàqu na à jamais ndax wax joo xam ne teguñu ko fenn ay dama for ci weewu bëy yooyu lañ war a bàyyi ñu dem ci conséquence nit dina wax wax boo xam ni moom ci boppam sax dina toog di réccu ne ay su ma yëgoon lu ma ko wax waa kan ko wax nag moom lan lay yëg man daal bu ma yeboon ni réew mi ci li ma ci gis man avant indépendance ngor amoon na mais bi ñu amee indépendance ak léegi man gisatuma ngor. am na koo xam ne mii ngi fita nekku fi te ko teg am na kuy dox te dee na bu yàgg ndax dañuy wax ne blessure yëpp mun nañ ko faj mu wér waaye bu làmmiñ dafay bàyyi ay séquelles pour mu wër problème la. yàlla dafa soxla nit moom mi ko bind nit soxla boppam moom en tan que moom mais société dafa soxla ay nit. imaginez nag société boo xam ne ña ko dundee wala ña nekk war koo liggéeyal am lu bëri loo xam ne dañ koy xaar ci ñoom amatuñu sax xel mën a toog am conscience tranquille ba mën a liggéey seen liggéey am na ku nekk ci barab di liggéey mais pour mu concentré wu liggéey sax problème la ndax kàddu guñ ko wax mu toog di ko xalaat yàqaluñ ko nee naa am na koo xam ne rey na boppam ndax kàddu gi nga xam ne moom la dégg am na koo xam ne génn dëkk bi dem kenn gisatu ko kenn déggatu ko ndax kàddu gi nga xam ne wax nañ ko ko te mënatul toog pour mën koo dégg et pourtant nag société dafa soxla ay nit ndax ay nit ñooy doxal société mais bu demee ba nga xam ne kii xelam jël nga ko foqati nga ko ci moom ci kàddu gu ñaaw kii ay cëram nga jël ko ci fox ci li nga xam ne mooy kàddu gu ñaaw kii bakkanam sax mun cee xaj fan nañ jëm kon nag muy conséquences yi tuuma dafa am conséquences yu garaaw ci société bi nee nañu nit gàddaay na ndax tuuma génn réew man gis naa koo xam ne jabaram dafa takk jabar xale yi tey yii rek sama genre gi xool-xool daal affaire bi xool xam ne kii daal ah xaaral gis na keneen rek waxal waa ji wax ju joo xam ne ci dëgg dëkk bi ne dafa yoom waa ji nekk doomu kilifa nekk doomu sëriñ ci digg dëkk bi noonu la gàddoo ay bagaasam génn dëkk bi saa yoo ko ne kañ ngay ñëw mu ne xanaa ma dee te dee moo ko fi indiwaat. Oh. dee ñu jëlee ko aéroport. moo ko fi indiwaat. donc tuuma tax na nit gàddaay am doom. tax na nit xam ne yomb yombut. mooy yow. naay naay. waaw ngente waaw. naay lay la mooy yow. naay la la. jabar ja day am seex mu xam ne yombut. kon tax na nit gàddaay. tax na nit xaru. tax na nit xaru. tuuma tax na nit di sangu tëdd addinaam yàqu à jamais ndax ku ko xool rek mu foog ne lañ ko waxoon lañ koy xooxal te nee nañ lañ la waxal mënoo ko rattraper mukk ci àddina parce que am na ñoo xam ne gëm nañ ba pare maam Sira yéen seen liggéey dafa nekk liggéey bu délicat parce que problème conscience la pour man mm. tey jii est-ce que yaakaaroo ne muy journaliste bi nag muy ñun ñii di wax ñun ñëpp ci yam mm-hmm. ndax ku ci nekk ci ñun est-ce que yaakaaroon ne war nga à chaque fois que ngay wax ci nit. Mm-hmm. nga jël sa turu yaay. Mm-hmm. wala nga jël sa turu papa. wala nga jël sa turu sœur wala sa frère nga remplacer ko par turu kooku ngay bind. nga xool ndax nan lay def ci yaw ni muy def ci yow. waaw nga xool ko est-ce que yaakaaroon ne précaution boobu aussi nit ñi yenn saa yi dëgg baax na. mais dafa am loo xam ne. problème de survie la yenn saa yi. absolument voilà. absolument mhm. Adja loolu euh, dëgg la. Mhm. à chaque fois nit ki da ngay mettre ci place ki ngay bind. dëgg euh, damay faral di wax toujours ci ay waxtaan ak samay moroom ak yooyu. Mhm. hiérarchie sax soxla woo ko. pour teg ay barrières yow en tant que journaliste. journaliste bu nekk. war yow yaa war a tegal sa bopp ay barrières. sa conscience moo la war a tegal ay barrières c'est très difficile nag. Mm-hmm. très. mais, entre autres même pas non non non non non non euh, euh, nga sax de bon fois gaañ nit dëgg la dëgg la. ci sa liggéey. Mm-hmm. de bonne foi. Mm-hmm. nga gaañ ko. sans le vouloir nga gaañ ko. parce que euh, man pour man nit ki. da teg barrière comme ni ma lay wax. Mhm. am na loo xamante ne que nit ki moo ko moomal boppam. dëgg la su sàngee boppam sutura man en tout cas. Mhm. man samay barrières yi ma teg. ma mhm. je dis que nit ki nga xamante ne dafa sàng boppam sutura la muy def ba mu koy def fexe na ba def ko ci sutura. nëbb na ko la mu mën du man maa ko koy génneel. dëgg la ñu xam na lu bari nag loo xam ne. duñ ko wax boo leen ko waxee dëgg buñ waxantee dëgg dëgg la. muy benn chose mais nag Adja. Mhm. nga jël sa turu yaay wala nga jël sa turu sœur wala nga jël sa turu frère wala yow sa bopp nga teg ko sa bopp. Mhm. mais man je di dis. Mhm. tey jii tey sama frère wala sama sœur wala même sama yaay mu nga ca àllaaxira nag. am na yàlla euh, mais tey jii tey kenn ku ma tas taq ci man sës rëkk. bu xëyee suba. def tooxi doonaam ba nga xamante ne que peut-être que mun du ma ko bind mais du ma mere ki ko bind ok parce que ndimbal na ca fekk loxoy borom dëgg la Adja yow tey jii mhm. nattu ma ko nag et je sais que meloon noonu moo tax ma am fitu sax mhm. joxe exemple boobu mhm. tey ji yaa ngi sa jëkkër yor sa njaboot mais boo ñakkee xam sa bopp xam sa valeur ba dem am far dem ak moom hôtel signé registre ba nga gis ko ñu indil la preuve nit informé wala registre baak yëpp mhm. te nga war a nekk exemple ci société bi mhm. waaye su sama plume bind ko waroo maa mere sa bopp nga war a mere loola bindal foofu laa bëgg a ñëw ma gën a bindal foofu laa bëgg a ñëw maa ko personne publique yi dañu war a xam qu'est-ce que c'est une personne publique exactement aussi. parce que une personne publique bu dem toog ci baar di naan ah! su neexee journaliste bu mu bind ko nag mais se vrai ah, ah moo def lu ñu bind moo def lu ñu bind waaw ñaw sa di boobu bind voilà <laughs> ñun artistes yi waaw ñun ay nit lañ yoo xam ne dañoo war a ay royukaay lañ dëgg la am na ci yoo xam ne waru waruñoo soloo noonu mhm. ñoo waxee noonu waruñoo doxee noonu mhm. ki nga xam ne kii nit ki day roy ci yow am na yu bëri yoo xam ne waroo ko def te déjà fi ñu toll nii par exemple mayaase nag jaal maire jaal di mhm, joué mhm, mhm. mais am na lu maire jaal di wax xale yi dañuy daal jël topp loolu wax jooju ak daan ne moom pour ñoom dafa baax wallaay loolu dafa baax fekk na loolu or ko baaxul moo tax bu ñuy wax wala ñuy génne dara suñu làmmiñ wala dara ñoo ko war a set seetantal ko avant ñuy génne quoi que ce soit xam nga bon parce que il faut parler français quoi <laughs> dama sonn man ci tubaab yi <laughs> mooy rek mooy rek maire dafa war a xam ne amatul vie c'est personne public mm-hmm. public la mm-hmm. lépp lu mu def mu ngi ci biti lépp lu mu def dafa intéressé nit ñi ñu xam comment il vit naka lay dundee absolument waaw yoon aussi dafa am ñaar euh, digaloo bu mu def mm-hmm. parce que doon personne publique aussi du tax nga ñàkk a doon nit d'accord parce que nit nit la mën a doon am na foo xam ne dañ laan la vie privée vie privée boobu yoon daf ko daf ko protége ba boo xoolee ñi nga xam ne dañoo siiw ñi ñu tuddee ay star wala ay homme public wala ay femme public. li ñu génn ci ñoom doonul li nga xam ne moom la ñu wane ci public bi. mais dañ naan kii publiquement lii la wane. léegi nit ki aussi day bëgg a dañ kumpa. leneen ci li nekk li mu gisul. loolu moo tax mu koy intéressé ba ba tax ba tax ba may ma may ma continuer. may ma ma continuer benn question rek benn question. et si cette vie tu la vis voilà mais dans ce cas doonatul vie privée. vie privée mooy la par exemple bu fekkee ne nit ki dafay say nekk ci sëy euh, néegu sëyam. moom ak jëkkëram wala jëkkër ak jabaram. Uh-huh. mais am na loo xam ne nii buñ ne diw kii mooy jabaram loolu. doonut loo xam ne c'est privé mais li ngeen xam ne dafa intime ci seen biir mhm. mais loolu mooy privé mais ah. léegi bu fekkee loolu privé yow mi nga xam ne même intime ci yow maam si la joxe exemple yaa koy génne bëgg ku ko bind société mais boobu yaa tooñ sa merci beaucoup nga sëy ba tax moom góor divorcé am moom sëy moom divorcé ak moom uh-huh. journaliste ñëw laaj la nga détaillé sa vie privée bi naan waaw dama sëy ak moom. divorcé ak moom jaarale ko yaa weer sa bopp day bind yow yaa weer sa bopp. waaw bàyyi leen journaliste yi la. waaw vas y extérieur. waaw xëj na presse boobu la ñu xam. Mhm. mais presse bu ëpp doole presse boobu mooy ñun rab bi ñu def. dëgg la ñun li ñuy wax presse bi amul fitu bind un quart bi. Mhm. benn phrase bi amuñu fitu bind ko. Mhm. te pourtant dara duñu duñu ci fekk pourquoi. c'est un paradoxe ça. parce que ñun ñoo weex. waaw parce que ñun daal la ñu yeb ñun la ñu yeb amee ñun. parce que ñun ñun ñun dañuy assumer. ñun dañuy assumer balaa ñoo wax. dañuy wax ba pare andi preuve yu leer parce que benn euh, ñun rappeurs yi. Euh, boo gisee benn côté on n'est pas compris wala bëgguñu ci société bi. Mhm. parce que dëgg bi ñuy wax la. ci dëgg bi ngeen di jaar ñun ñu duñu li ñun duñu li duñu lañ bët. ñëw di mhm. xool yoon ak non ñun vie privée sax intéressé wuñu mhm. mais li ñu intéressé mooy li doxal société bi. ak li nekk ci mbedd bi. loo xam ne baax la nit ñëw yàq ko. ah kooku ñun dañ ci teg suñu tànk. jaar ci dëgg bi exactement. donc loolu c'est important aussi quoi. man de tàcc